mais nañu dem ba egg foofu yow da ni am nga majorité nga dem li nga am yëpp mën ta passé soixante dix députés xaw ma soixante onze députés nga dëpp dippi comme ni ko gaa ñi waxee ba egg ci ay quatre vingt quatre vingt deux nga dëppaat dippi ba kenn koo xamante ni tey jii jaay na ngorom ñëw fekk si la wax mais léegi nga dem ba sa kàddu gi nga waroon a sàmm sa digganteeg jigéen jigéen ak ni jigéen mel nga toroxal ko bëccëgu ndara kàmm ci digg assemblée nationale. nga toroxal ko ci biir Sénégal départ 45 département yëpp toxa toroxal ko ci 15 régions yëpp parce que fu nekk wër na fa ba ñàkk te xëpp talatul parfum talatul curaayu talatul soli basin nga teg ci boppam dëggalal ko ne boo gañee yow yaay dem kon lii lu mu wane mooy kon gañewul kon dañoo tappale ba teg ñu woo ko nag ne ko tappale ñun ñoo ko def gañewul léegi waxuma sax gagné wuñ waaye duñ la duñ la teg sax ci njiit laayal président assemblée nationale waaye dañ lay bëgg a xañ sa députation députation bi Macky sàll joxu ko ko Ismaïla Madior Fall mii di wax joxu ko ko askan wi ñoo ko ko jox te njort naa ni nag buñ ca eggee askan wi danañ dana bu ñu ca namee egg yaakaar naa duñ ca egg parce que li xew assemblée moom daf ko réere moom Madior mhm. dafa am lu mu réere biir assemblée assemblée bii ma gis nii tey bokkut ak bañ daan téye di def lu leen neex yore seen clavier. di rakaj rakaj fu leen neex dugal a génn moom ñii dafa réer assemblée. te am na yoo xamante ni lu nekk ci kanam raw li ba su ma ne laa dafa réer assemblée rek dafa réer ñoom ma waxal la ko tey jii xaw ma yëg nga ko xaw ma yëgoo ko. Mhm. ñu ngi négocier ak opposition bi ci suuf lu ñu bëgg a voté wala lu ñu bëgg a tëral xoolal ñu ngi leen di diw ay pommade. opposition ban la loolu. su ñun. yeewi askan wi ñun ñoom ñu ngi bëgg a dee. mën naa ci tudd tur ñoo xamante ni tey jii bu ñu duggee biir assemblée xam lu ñuy wax. Mm. ñoo gàññi il faut ñu xam ni Sénégal ñoo ko bokk bu ñu tasaare Sénégal waaw nañu xool nu mu gën a rafet ñu kañ nga daan dégg waa APR di wax discours billahi loolu la ñuy tënk ci biir kulus yi. Hmm? kii ñëw fii di wax waxam yi. moom la concerne. mais taxawaayu opposition bi justement. ah oui ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci biir assemblée. mais par rapport ak négociation yooyu lu ciy doon seen taxawaay. déedéet négociation yooyu soo ko déggee newuma la négocier ngir dara. non je veux dire bu ñu ñëwee di leen copter di leen. jéem mais na ñun ñu yeewu ci fajar. gis nga xelu Sénégal yi mën nañ ci mën na ci daal. laa ilaha laa gis nga ñeem a gis fee dama lay limal. Mhm. Birame Souleye. oui président groupe parlementaire. Abass Fall. Mhm. honorable député Abba Mbaye honorable député Barthélemy Toye jaas mhm. ak gi ñoo tuddee gi Marius Sagna mhm. mais ñoom fi mu ne nii yamb ci caaye lañ ci waa APR waa APR am na ñeneen de ñooñu rek nga waaye ñooñu ñooñu dama dama seetlu ñooñu rek teg leen ci am na ñeneen ñoo xamante ni yëngatuwuñ mhm. te bu ñu yëngatoo tey mais xoolal ku ci mel na Mansour Kébé mais ñi xam ñu ko moom député diaspora la man xam naa ko bu baax ci fit xam naa ko ci baax ci expérience xam naa ko ci xam naa ko baax ci njàng tey ñu mel noonu dañu nekk bu ma bu ma koy mën qualifier dama ni dafa am ñu nekk ci terrain bi futti seen mbubb mais ñi toog ci banc de touche di xool hmm. bis bu ñu jógee rek ñu xam ni dëgg-dëgg la looloo tax ci suuf ñoom ñu ngi négocier lu ñu war a voté dañu war ko partage ci digg bi wala ko xaaj non amatul ay ñu ñoo majorité déedéet loolu jar na teg mbir mi ci yoon amul gis nga yii ñuy génne mhm. di diaboliser nit ñi pour ñu nekk ci di xalaat pour fàtte dund gu seer gi la ak pour fàtte coono doomu aadama yi loolu dong la du leneen waaye moom mi ma a xam ni lii muy wax nii naan am na fu ñuy jaar ruq a génn na indi loolu teg dana fa fekk ay député député yaa ngi foofu te ñu def très attention mhm. y a des biir assemblée nationale yoo xamante ni des na tuuti ñu fëgg taabal ji ndax lan mais mooy xanaa déggoo li ma la wax yaa a des Mimi Touré su ma ne laa y a des Mimi Touré y a ah, yoo xamante ne ñu ngi ci APR ñoom diggoon nañ leen dara est-ce que si kaaw Mimi Touré la ñu nekk ba ñu war a doon ay Mimi Touré non dafa am ñoo xamante ni mhm. gis nga ñu ngi leen doon wax naan nañu def très attention ci gouvernement bi ñuy teg kan mooy premier ministre ak ñan ñooy ministre mhm. am na ñoo xamante ni ca seen gox ca seen gox. dañu fa mer donte ay député lañ ci ña ngi ci biir assemblée. te des na tuuti dinaa dellu si waat fii ne la Abdou Khadre. waxuma la woon ni am na ñoo xamante ni ñett a ngi ci ba ñeent bu ñu moytuwul seen lii ñuy tudde ay quatre-vingt-deux quatre-vingt sax dootuñu ko mat. Hmm. maa la wax li danañ daal di bu fekkee dafa am loi yu ñu faral tëral euh, ndëgg sërëx yoo xamante ni eh, moom kii njiitam li Eh, yaakaar na ni moom dese na ko pour mën ko dugal mën a galgal Mimi kon na pare galgal ñeenti Mimi Touré après Mimi Touré moom yaakaaruma ne mën nañ ko ma ni na pare galgal yeneen ñeenti Mimi Touré yu bokkut ak mii Touré mi yeneen ñeenti Mimi mhm. donc ñett ñu góor ak benn bu jigéen ci benn Bokk Yaakaar ci Benno Bokk Yaakaar maa la wax lii ñoo xam nañ ko sax xam nañ li xew biir assemblée fi mu ne dañuy siiwa ñaari at yi jeex te balaa ñaari at yi jeex danañu jubbanti ba bam ni kooj ñuy teg mbir yi ci yoon kenn dootul def lu lëndam wala ngay def ma tey amatul. d'accord te xaaral <coughs> léegi tey ñu dugg ci voté li ñu na budget bi ñu nar a doxale mille vingt trois xaaral ba séance yi commencé. marathon budgétaire ba marathon budgétaire bi dugg bu duggee nga xam ni lépp dëgg la. Ah, gis nga du da ngeen ni xëccoo foofu imam déedéet wala xëccoo jeex na fa jubluwaay bi lan lay doon gis nga ma ni la xëccoo jeex na fa. yéen a ngi menacé rek. xëccoo du mhm. menace. Mhm. xëccoo jeex na fa. ka doon perturbé. Mhm. am na leneen lu mu dégg. loo xamante ni jibul ci kaw. te loola yemale na ko dootu ko defaat biir assemblée. xam nga tey juum euh, def na def na yëfi njubla ngang ba votel Mimi Touré. ci vote bi ñu njëkk a def. waaw léegi tey jii deuxième vote ba ñuy def lu ko tax mu reculer. te beneen phase bu ñu ñëwaat. Hmm. jarul ministre be di ci jarul euh, maajoor di ci wax moom maajoor na dem gis kooku ne ko bu ñu duggatee assemblée defal na nga njëkkoon a def ñu xool ba xam foofu la wax ji d'accord foofu la wax ji Abdou Khadre mm-hmm. euh, nañu jàmmal nit ñi te préparer rek xam ni lii ñëw moom bu ñu ko seddalee jaarale ko ci yoon ma waxuma seddal rek parce que féetali seen côté wa taxas mm-hmm. jëme sa côté bu buñ ko seddalee jaarale ko ci yoon assemblée sedd jaar yoon bu buñ ko seddalul jaarale wuñ ko ci yoon gis nga lu ñu fa def ñun ñoo leen ko sant ñun ñan ñun ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo leen woteel ba ñu nekk foofu ñun ñoo leen ko sant ñun askan député député député wi lu ñu fa mënti def ñun ñoo leen ko sant ñun ñan askan wi mais ñun askan wi woy mhm. Abdou Khadre ñun askan wi dañuy coonaan ki ñu ko tuddee euh, Guy Marius Sagna dafa yenu dafa yenu uh, kii bi kees gi dem hmm. yóbbu ko mais am na bu gën a garaaw bu mu def lu tax waxuñu ci essence bañ ko jox di jël ay bugguma tudd kii pour publicité hmm. ñoo xamante ni ñoom ñoo koy war a jox essence compagnie française compagnie hmm. mais daf ko bañ taw jibu ci daf ko bañ te te dafa nekk loo xamante ni moom dafa gëm li nga xamante ni askan wi tànn nañ ko yebal ko foofu mu nekk mu koy exercer mu koy doxal loola moo ko poussé woon ni li ko poussé ci mu bañ jël carburant wu total wala mu bañ jël carburant wu beneen kii bu mu mënti doon bu jëm ci français yi moo ko poussé woon pour mu mën a corriger yi def mu yanu kees ga mais boobaak léegi déggati nga coow biir assemblée hmm. pourtant am na voté nañ fi bureau yëpp yeeg hmm. secrétaire yeeg yeeg yëpp doo dégg coow te amuñu ci lu leen neex hmm. waa ji amu ci lu ko neex ba mu génn fii naan way en tout cas bu lii dootu fi amate bu fi amate bu fi amate dara wa in taudu naud bu ngeen delloo def li ngeen defoon rek ñu defaat li ñuy def hmm. tooguma fi nag pour defendre euh, défendre Mimi man du ma waaye doxalin bi dëgg bu jotee nañ ko wax nañu bàyyi bu ñu leen jekkoo ñu bëgg suxlu ba jaar ci maslaxa ba jaar ci suufu tànk yi génn yoo fi ragal yooyu nañ ko bàyyi nañu ñeme affaire bi rek te xam ni jeex na ba pare. d'accord xaw ma douze mois la xaw ma quinze mois xaw ma treize mois. léegi léegi léegi gën na néew gën na néew quinze mois. quinze mois mu ngi wàññeeku saa su ne ci pare nañ ci. voilà askan wee wax ni pare nañ ci. du ñun mm-hmm. conseil constitutionnel nag feneen nag fu mu mënti doon juge ak lu mu mënti doon ministre bi xoolal na fal ay ministre yoo xamante ni ay constitutionnaliste lañ. mënut a effacer li nar a am population bi ñoo ni bëgguñu doy na. Mhm. do gasi yi ak a faaga mhm. la population bi wax. d'accord euh, beneen.